Hi everybody ladies and gentlemen welcome back to this channel learning English in wolof salaamaaleykum gars yi dal leen ak jàmm ci chaîne bi di jàng anglais ci wolof euh, avant tout euh, dañ leen di ñaan ngeen abonné aimé vidéo bi te ngeen partagé te surtout ngeen activer cloche de notification bi pour ngeen am suñu yeneen vidéo ok guys to have lunch to have lunch añ to have lunch to have lunch añ to have lunch to we usually have lunch at midday tàmm nañoo añ waxtu midi we usually we usually have lunch at midday We usually have lunch at midday. We usually have lunch at midday. tàmm nañoo añ waxtu wu midi. Okay guys, let's continue. To have dinner. To have dinner. Reer. To have dinner. Reer. To have dinner. to have dinner. For example, at what time do you usually have dinner? At what time do you usually have dinner? Ban heure nga tàmma reer. At what time do you usually have dinner? At what time do you usually have dinner? At what time do you usually have dinner? Ban heure nga tàmma reer. At what time do you usually have dinner? The possible answer is I usually have dinner before midnight. tàmm naa reer balaay minuit di jot. I usually have dinner before midnight. I usually have dinner before midnight tàmm naa reer balaay min wi di jot I usually have dinner before midnight I usually have dinner before midnight okay let's go to make dinner to make dinner to make dinner to make you can say uh, mën nañu wax tamit to make lunch togg añ to make breakfast togg ndékki yeah to make dinner togg reer uh, this is uh, an example bi exemple la quoi to make dinner for example it's my aunt who makes dinner every day it's my aunt who makes dinner every day sama tante mooy toog reer bés bu set it's my aunt who makes dinner every day sama tante mooy toog reer bés bu set it's my aunt who makes dinner every day ok guys um, yi nag pour nga mën ko maîtriser da nga koy waxantu xama li ci def say propre phrase quoi donc euh, ñu leen di jëfal di leen jox dig daje ci jëb beneen leçon di leen euh, ñaan ngeen abonné partage vidéo bi te surtout ngeen activer cloche de notification bi pour ngeen am suñu yeneeni vidéo merci guys thank you so